wax dëgg yàlla war nañ poser suñu bopp ay question ne est-ce que ñun yàlla lañuy jaamu est-ce que ñun ay jullit lañ wala est-ce que ñun ay naafeq lañ wala est-ce que ñun sax duñu ay yéefar c'est-à-dire ñetti question yi war nañ ko poser suñu bopp jullit bu ne foo mën a ne mooy est-ce que man jullit la wala déedéet est-ce que man du ma naafeq wala est-ce que man du ma yéefar dafa doy waar yàlla na yàlla gindi ñu ñun ñëpp teg ñu ci yoonu siraatal mustaqim mooy yoonu aljanna mooy yoon bi yonent bi saa sallam nekkoon tracé ko te yàlla di ko wax ca suuratu ca suuratu al an'am borom bi subhanahu wa taala di wax mu ne qul taalaw atlu ma xarama rabbukum alaykum ñoo leen ma wax leen li yàlla araamal ci yéen mu ciy lim allaa tushriku bi allaa tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wala taqtulu awlaadakum min imlaaqin nahnu narzuqukum wa iyaahum wala taqrabu alfawaahisha ma dahra minha wa ma batan wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bilhaq dalikum wassaakum bihi laallakum taaqiluun wala taqrabu maala alyatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashudda wa awfu lkayla walmisaana bilqist wala wa awfu lkayla walmisaana bilqist la nukallifu nafsan illa wusaha wa ida qultum faadilu walaw kaana da qurba wa bi ahdillahi awfu dalikum wassaakum bihi laallakum tadakkaruun mu ne wa anna hada siraati mustaqiman fattabicuuhu wala tattabicu subul fatafaraqa bikum an sabili dalikum wassaakum dem leen ca suuratu al an'am mooy le bestiaux nga tàmmali ko mooy ca fin côté ba maanaa euh, ba nga wëlbati page bi nga xamante ni subhaanallah moom mooy tànn mooy l'avant-dernière page yàlla ne li mu araamal ci ñun commencé ko ci bokkaale nga xam ne Sénégal tey ñëw bari kër yu bari dañuy bokkaale yàlla te mooy bàkkaar boo xamante ni ku dee yóbbaale bàkkaar bi bés penc ci yow safara moom moom mooy sa dëkkuwaay yow doo dugg aljanna te noo seulement doo dugg aljanna waaye safara ngay dugg te fa ngay sax ba faw yàllaa ko wax alquran yàllaa ko wax ca suratul maida ca suratul nisa ay yu bari innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna yàlla xaraamal na ci yow te nag wama waaxu naar safara lay dem Sénégal dañuy bokkaale yàlla guddi ak bëccëg bu ñuy lekk dañuy bokkaale yàlla bu ñuy naan dañuy bokkaale yàlla bu ñuy tukki dañuy bokkaale yàlla bu ñuy jul bu ñuy julli dañuy bokkaale yàlla bu ñuy woor dañuy bokkaale yàlla cest dire ci bokkaale yàlla ci lañ dëkk waaye nag subhanallah ñuy wax dëgg te yàlla rek a tax bariwuñu moo tax ma ne ku ci nekk na xool sa diggante ak sa borom waaye xool sa diggante ak sa conscience est-ce que jullit nga est-ce que doo naa feex est-ce que doo tey Sénégal subhanallah yaa ngi dégg ñu ne diw tëj nañ ko tel borom xam-xam temps yi Omar Sall lañ jël nee nañ dañ ko convoqué ndax dafa am lu mu wax mooy ci Tidjani mais nit ñaa ngi fi Tidjani am nañu ci wax loo xamante ni mais mais mais mais mais subhanallah lu ko gën a tuuti nit wax na ko wala def na ko yàlla alag leen Sénégal subhanallah ma ne est-ce que réellement ay jullit dëgg-dëgg lañ wala boog ñaata ñoo ciy jullit. ay tiijaan yu bari taxaw nañ fi ne salaatul faatixi moom moo gën salaat bu yonent bi jàngale san-sam mooy salaat ibrahim yi allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ibrahim am na ay tiijaan yu bari ci seeni borom xam-xam yu ne salaatul faatixi allahuma sal allahuma sal al faatixi ma ula wa xatma sa nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mosu ko jàng mosu ko wax abou bakr siddiq mosu ko xam omar radiallahu anhum ajmain mosuñu ko xam aïcha mosu ko jàng xadija nitu yi ñooñ nga xamante ni ñooy nitu aljanna yi njëkk yi subhanallah ahlu badr kenn mosu ko xam ñeent ngir yi imam malik abu hanifa shafi ahmad ibn hanbal kenn mosu ko xam sénégal tey mu ngoog am na fa nee nañ moom moo gën salaat bi nga xamante ni yonent sal nee na jël leen ñaan bii salaat bi mooy bii subhanallah tey Sénégal tijaan yu bari ñu ngi koy wax y a rien du tout y a rien qui se passe am na sax ay tijaan yu dem ba ne ci seeni borom xam-xam sax yu dem ba ne salaatul fatih moom moo gën alxuraan nga jàng ko 60 xaw ma 60 fois nga jàng ko un nombre de fois salaatul fatih moo ko gën mais eh, subhanallah dara xewul kenn convoqué leen kenn woowu leen kenn dara xewul am na ay murit yu fi taxaw ne subhanallah saaga fi saaga fi ay yonent subhanallah am na ñu fi taxaw saaga fi ay yonent saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara xewul Sénégal am na ñu taxaw ne diw yonent la mais dara xew xewul subhanallah dara xewul ne diw yonent la te yonent mujj mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te tey Sénégal am na fa dara xewul am na ñu fi taxaw am na ay murit yu fi taxaw ne diw ñu ne naa mu ne diw yàlla la laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin diw yàlla dara xewul ci seeni kàngam ci seeni sëriñ am na ñu fi taxaw ne sax diw moo bind yàlla subhanallah li nga xamante ni ñëpp ci waroon taxaw xeex ko waaye laa ilaha illallah nañu ragal yàlla nañu ragal yàlla naam lislaam daf ñoo jàngal mooy yar ak teggin waaye wax dëgg ànd ak suñuy principe ñu gën a bari ci senegal défendre ñu lislaam